nooju ah, xam nga caxabal waaw xam xam nga gulër bi xam nga xam nga ngoobu waaw ah, bari bëri def bëri def bëri façon de loolu ci loolu loolu yëpp la ñu bëri ngi yéen caméra di wari kii boo leen laajoon tey mm. ko kii euh, internet yu mel ni yéen mm. te ñu ci bëri ñu ko poser question parce que xamuñu ko mm-hmm. waaw yooy yëpp maa ngi dagg waxtaan bi waaw dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw ma xuus incha allah waa nga voilà nga jàng nan lañ koy defee ñu wan leen nu ñu koy defee ak nan la ak prise bi nii la tudd moo tax des fois dañuy seetaan combat komba bi jeex mu ne la noo ko daadee kooku du ko mën a wax seetlu nga loolu danaan ci danaan maa ngi diw diw sama sama bàjjen diw mm-hmm. sama nijaay diw mm-hmm. sama grand frère diw maa ngi koy gërëm di ko sama déet waxal noo daanee waa ji mm-hmm. du la ci wuyu mukk xam nga lu ñëpp naa bari na ci mbëri ah ñu ci bëri duñu la wax ki daal nu mu ko daale dañ naan ah waaw sama nijaay maa ngi gërëm kii moo ma jox ma lekk moo ma jox nii diw mënu ma ko gërëm mënu ma ko fay waaye du la ne maa def nii ma def ko nii ma def ko nii tudd prise su bëri ba mu ko daane ay lippi ak yooyu yëpp xamoo ko ay lippi waaw yooyu faaw ñu ñëw ci loolu dañuy jël émission spéciale <laughs> dugg ci loolu parce que yaa ngi fu am importance parce que loolu mbëri soxla nañ pour xam loolu xam naa ni ñu ci bëri tamit voilà nu mu tudd dañuy ñëwaat euh, ginnaaw bañ jugee ci combat ki nga xamante ni mooy Tapha Gueye de ñu gis combat boo xamante ni combat yi mën nañ ñu mag la ak raq diggante Zoss ak ki nga xamante ni mooy Liss Ndiago Liss Ndiago bëri woon fi ak ki nga xamante ni mooy Pokola làmb ju doy waar làmb joo xamante ni mën nañu ubbale na réew mi euh, jour boobu parce que làmb ju méttee méttee méttee tey mu war a bëreeg Zoss Zoss toog na ay at yu bëri amul victoire toog na ay ay at yu bëri aussi bëriwul. xam nga Zoss xam nga Zoss mbër muy jeexal la neexu la wax nag waaye dëgg bu ñëwee dañ koy wax. tolloogul nag fu muy jeexale waaye daa teel a bàyyi làmb bàyyi làmb gi xam nga mooy lan na mu daan ba mu ciy toll ci claf ba na mu daan joxe làmb ak xam da ko joxeetu làmb ak xam léegi day foraatu rek bu dëgg dee rek day foraatu rek. day wër wecc waaw wàcceet rek di wut bootam léeg-léeg ñu seetu ko képp benn booy bu bëgg génn booy bu bëgg a wut parce que moom def na carrière benn booy bu bëgg def palmarès ànd ak moom jige ko. dégg nga am ci ay am mu am ci lu mu ci am bu ci amee 5 millions baax na bu ci amee millions baax na lu mu ci am baax na bu daanee baax na su daanoo baax na waaw xam nga loolu soo demee ba tollu foofu wuti leneen a koy gën a rafet da ngay dem ba yow fii ne xam nga lan mooy dem wuti leneen rek moo fay gën a jekk fu mu ko mooy xale bu bëgg a jàll dañ lay def occasion rek waaw waaw parce que moom bu meloon ni Moussa Gueye gënoon a amoon baraj baraj ak kër ba yooyu xaw a tuuti quoi dégg nga da jeexal lu jeexal goo ne war na mën a bëre booy yi. kon maanaam soo ni nga waxee bëre moo des. waaw ci si du ko bëre bu des sax du bëre bu des waaye àq ja maanaam condition ba nga teel a yeewu fajar dem géej entre daw fii ba ay kilomètres soo ñëwee récupéré ngoon nga dem musculation gannaaw suba nga dem contact maanaam noonu itinéraire boo mu daan def noonu di ca ba muy la defatul man gisuma ko waaye waaye defatu ko parce que combat bi yi passé moo ko wane. defatu waaye ki yi mu def nii moo tax gis combat yëpp gisoo du gañewul fen du gañe parce que làmb day mbir moo xam ne boo ko joxee ak rek gis ko waaye boo ko gisul ak doo ci am dara maa la wax da ngay sonn rek. mais boo xoolee dynamique bu mu ñëw parce que mooy booy ay kàddoom démb rek ci face to face wane na ko amaana dafa mere booy bi bëgg na daan booy bi corriger booy bi la bëgg. waaw non day wax rek c'est que xam nga loolu euh, promoteur bi ci boppam moo leen leen euh, safal leen combat bi safal leen combat bi nag dafa xew moo tax ñu bari la ñuy wax. est-ce que seetlu nga leen ci télé bi fës fës def ku ci nekk la ngay wax est-ce que di gis nga bi nga ñuy appliquer li nga wax ah, kon koy wax ju dëgg hmm. boo toogee fës fës yow minute laa la may soo ñëwul ma ñëw ah nga taxaw fay léewtoo jëmale ilaa ji mu saman kon kay la nga waxoon defoo ko waaw ah, mu nga bon loolu dañuy wax rek neexal leexal làmb la rek. Liss Ndiago yan chance la am pour mën a jeexal làmb ji diggante mag Zoss waaw ñoo respecté mboru mag rek xam ne mboru mag lay bëreel. mbëroo maag mu ko jëkk ci ak carrière jiitu ko ci def ci lu mu deful jaar fu mu jaarul kooku nag boo ñëwee doo ko jéem humilier da ngay teey ba jàpp ko rek dangay ngay teey ba teg ci yoon xe boo ñëwee favoriser bëgg koo duma mën am mbett soo ñëwee bëgg a def bëgg koo massacrer ci tàng-tàng bi mën nga am mbett waaye daal la mu mënoon di ko def bu ci teggi dara la ma la waxoon la ma waxoon Sa Thiès ne la la mu ba muy bëri bo kii ama seen may la ngay ma looy def may la la mu mënoon di mu ci dindi dara waaw la mu daan def di daan bu mu ci dindi dara waaye kii moom it la mu daan def daal bu mu ci dindi dara waaw na kon condition bi baax mbëru mag la bu bëri bi yàggee rek mu jox la boppam mbëru mag su entraîné wul bu bëri bi yàgg mu jox la boppam a ah, ah, nu muy def eh. bu la joxul boppam dee di bu la joxul boppam Ibrahima di eh. waaw eh, dañuy ñëwaat buñ jógee ci loolu mën nañ ñi daanaka avant grand combat bi la diggante Zos diggante Guy gi ak Ada mu doon làmb ju bari coow mu doon guy gi instant am fu mu teg bëtam parce que guy gi dañ ko dig sens ci digganteem ak Eumeu Sène instant dafa bëgg a daan booy bi pour mën a bëre ki nga xamante ni mooy Eumeu Sène naka nga gisee enjeu combat waaw mais xam nga guy gi euh, na ma ko xamee woon laa gisatul combat yu mujj yi ci laa ko yàttee combat yu mujj yi passé gisuma benn avalement si moom la mu mënoon parce que guy gi bu ma saa sëq ñaari loxoom ci sa geño ku farak moom sa xel dal la da nga ne ah, jàpp na loolu loi de simple lañ ko tuddee woon loi de simple anamu kañ la gëj a simple wax ma kañ la gëj a simple. waaye doo def ay mbot def na fi. Ah, ban mboot mboot mboot tàqali ko la de mboot ba gis naa ko contre kii contre site ba mu ko mboot ba ñu génn saako ya gis naa ko waaye mboot ba mbootu tàqali ko la far xéewal ñëw mais du bëre bu réew leen daane de wax dëgg yàlla dëgg rek kay wax du mboot moo xam ne koo togg ba mu ñor parce que bu ko tafoon ci wet gi xëcc bras bi ba mu ñëw taf ko ci ak téye triceps ba. déplacé un pas ba tëgg day déséquilibré mu door tëgg mboot ci biir bi lay toog noonu la ñuy mbootee waaye mbootu tàqalikoo la far waaja a dem képp rek la waaye ba tey euh, des na de ba guy gi moom a xamoon mm-hmm. ku mu ne ci yéex sa gaño nga buddi ko dem mm-hmm. gisatuma ko. mais gis nga guy gi actuellement démb ci face to face bi. forme gis naa ko waaw bi xam nga des fois forme noppalu ak forme entraîné dalul benn mm-hmm. léeg-léeg gis mbër waxuma nag moom la waaye dama mbër léeg-léeg nga gis ko mu ufu toll nii entre yëpp yaram bi ñëw nga ne kii ne en forme fekk nekkul forme xam nga lu ko dal noppalu dong ko jàpp ak naan ndox mu sedd naan sa ndox mu sedd commencé di naan say glace yaakaar ne jàpp nga forme mais ko forme ci xol lay nekk ci xol ci dënn fii lay nekk muscle yi mën na ko cuisse yi toll nii bras yi toll nii yëpp du développé c'est bien boo rafet na day rafetal forme waaye xol boo xam ne mën ngaa contact boo koŋ nga xam ne doo xoox ah, te nit bu xooxee amatul dara ah booy nit ku xoox <laughs> fool ak sa benn morom fii rek ba nga xoox nga xool buñ la joxe ñaari pot ndox di ko naan waaw ah, yetam mais mais mais mais actuellement guy gi yan chance la am pour mun a daan Ada Fass aussi. waaw ni tekk rek jéem koo nax te waaye nag gisuma guy gi ba bëre naxaate. Hmm. na gisuma bëre naxaate amul ko amul bëre naxaate maanaam teelu ndaw ndaw loo xam da ñëw teey nax ko ba ne ko këpp ba këpp ko dem gisuma mu am bëre boobu mosuma ko gis mu bëre ko. a Ada Fass nag booy le boo xam ne bii yàlla jox na ko mbooloo mu ngi yor wax rek tu vois waaw damay def nii damay def naa xam nga mbooloo bu la joxee bu la yàlla teelee jox mbooloo moo xam ne say moroom amuñu ko xam lay dimbali borom encadrement ay borom xam dar la ay mag yu la déggal ba pare am xam laa wax de ñooñu loolu soo ko amee mën nga cee génn mais loolu soo ko amul pour nga génn ci c'est tout un man maa la wax lii. waaw mais Ada Fass tamit parce que sooy xool combat bi mën nañ ni moom it combat la boo xam ne buntu la ci moom parce que dafa jugee ah, digganteem ak. tax na ñu tànnal ay morom ma nekk ay ay bu ko boole woon caatu joof mi combat la bu ñu ko boole woon caatu yaraax ko combat la nga ay ay ay Jackson ay ñooñu ñëpp ay morom lañ de am na booy yu bëri a ah, ak ay booy ñaam bi booy ñaam bi ak ñooñu dajeeg ñoom sar ko ñoo waa ñaamu ndaw ñooñu ay moroom lañu bari na ay morom ci làmb ji di mais pour ba koo tëbal parce que borom mbooloo la pour ko tëbal ko moo tax ñu def noonu fi mu ne tey jii ñaanalu ma ko mais bu ko guy gi daanoon nii léegi nga gis ñu wutalaat ko beneen occasion. bëgg na ma non moom instant mu ngi ci trois avance presque. ah xoolal trois avance. waaw moom daanaka mu ngi ci ay avance yu leer la tëdd. ah xoolal naa sànq kii di ko wax. Mhm. dégg naa guy gi i ko wax. Mhm, mhm. Euh, tey moom Ada Fass instant instant bi diggante ma guy gi naka la war a mën a bëree ba teel a jeexal làmb ji làmb ji dafa war a gaaw wala. waaw gaaw rek moo ci nekk fermer attaqué dox ci kawam. waaw xañ ko jàpp bi parce que foofu ji euh, guy gi gisuma ci moom beneen bëre bu dul sàpp jàpp simpi waaw xañ ko jàpp bi rek. da ne da koy dóor ci put guy gi ne dafa bëgg dóor booy bi ci put wala mu buddi yooyu yooyu waxi mbër la rek da ngaa def dóor yomb ba nga dee sédan bi mos nga gis dóor ci put mos nga ko gis man mii nga xam ne sa papa laa yow fii de mosuma gis ku ñu dóor ci put man bëri naa 40 ans laa wax mosuma gis ku ñu dóor ci put. dafa am parti yoo xam ne ci doomu aadama ci yow na yàlla koy sàmmal boppam parce que parti coup mortel la te bakkan dafa foor comme bakkan dafa foor am na foo xam ne bu ñu la fa dóoree nga ñàkk sa bakkan kenn mënoo koo sàmm yàlla la koy sàmmal muy précieux fu mel ni ci xol fii ci mel ni ci pour ci mel am na point point sensible yoo xam ne daal bu dee bokk sax dañ lay tere nga dóor fa mm-hmm. waaw dañ lay tere nga door fa parce que xam nañ ne fii ay coup mortel la moo tax loolu nag yu ci bari borom bee koy sàmmal boppam moo tax jéem faa dóor nit mën nga koo wax waaye doo ko mën. kon kon mën nañ jàpp ni làmb ji ñoom ñaar bu ñu bëree wure naka nga gis ci ndoxtu bare bëre Ada Fass. waaw am na mënin de am na am na benn mënin bu mu am de maam gis naa mëninam bu mu daanee booyu euh, yar booy caari géej boobu waaye nag booy ba euh, dafa bàyyi tànk ba ci kanam di yóotu ba ci ginnaaw tànk ba ci ginnaaw jóg mu ànd ak moom kooku moom moo di déséquilibre bi ko daan. déséquilibre ba ko daan moom moo ko indi parce que tànk boo yotoo bi bi nga gën a jege ngay jàpp waaye nga bàyyi ko di yóotu ba ci ginnaaw kon sa tànk bi ci ginnaaw du tegu te tànk bi ci ginnaaw bu tegul benn tànk ngay taxawee te nit mënu taxawee benn tànk di am doole yow tam moo tax bi moo ñëw moom rek tëgg ko mboot bi day ñëw waaw na bani nam rek en tout cas su ma la moom daal dinaa xañ kii jàpp bi dinaa xañ guy gi bi te jéem a employé li fermé attaque dox ci kawam. bu xeexee guy waaw guy gi du xeexkat guy gi du xeexkat moom si jàpp simple rek loolu moo doon bëri mais xeexkat bu ñuy wax boo nga xam ne un nga xam ne loxo yi neex am gos am droite wala nga xam ne pied gos fu mu la jëmee gauche crochet droite bi ñëw mosuma ko gis amu ko. mais guy gi tenir Ama Baldé bi nga doon wax comme maam ba muy bëreeg Ama Baldé tenir na Ama Baldé. jamono yooyu nag mu jamono mu ngi ci dynamique entraîné ba wow condition la daane Ama Baldé parce que Ama Baldé dafa dem ba jeex Ama Baldé fournir na fournir lu ma ne fournir na ko mais dafa mujj jeex parce que moom itam Ama Baldé su defoon yëfu mag foofu euh, téye na ma téye te fii mënu ma ko fee daan damay bàyyi ñu atte ñu rek waaw waaye du ma fa nekk di ko jéem a daan ci koo xam ne ponkal mu tëb ñaari loxoom sëq ñaari ba mu dëgër ah nga xam ne yow mënoo dindi loxo yi mënoo dafa téye nga téye jéem mënoo ko faa daan damay fexe yow dooma daan rek bu yàggee xamu nu ñuy def ante leen su ñu leen attee nag bu ngeen dellu siwaatee nag ah ma fexe nag ba la la nga amoon dootoo ko mooy mooy mooy téye bu dëgër ba jàpp sama gajo ba téye ba du ma teree bëre loolu laa lay xañ euh, ma daanaka nag foofu la ñuy xuusee ci ki nga xamante ni mooy euh, Ama Baldé ñu gis démb